Je wa rahmatullah frère euh, président Ousmane may di waxtaan ak ci lu rek euh, lancer un appel woote euh, gannaaw bi mouvement pour la défense de la démocratie de MDD, 2 d bi nga xam ci lañu bokk di kuréel gu ay parti politique ak mouvement citoyen gannaaw décision ni euh, suba ci aljuma bi vendredi 11 insha allah gannaaw bu ñu jullee jumaa ba noppi bëgg na ñu def dajé bu rëy rëy rëy fële place de la nation ex place de l'Obélisque djublu euh, ci nak exiger euh, li nga xamné moy ñi nga xamné japp jàpp nañ leen ba léegi te ba léegi ñu nekk ci loxo Macky Sall ñu bàyyi leen te ñu tollu ci juróom-ñett yo xamné ñenté ñeent ñi nga prison Diourbel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 mom xamul ludul luñ ko won ludul dul xamuko xamu tax M2D nak ñi nek ci bir kasso bi waruñ ñoo gëna goré ndax la tax ñu dem fofu ñun ñi la rawatina man mi nga xamné man lañu jappone ni bëgg nañ maa faagagal ba tax ñu jox ñu ne loolu nag mënuñu ko continuer di sétal bëgg nañu jamm torop té dinañ ko dox ba mat sëkk waaye réew buñ ci nekké ñepp wara doxando dem ci jamm gis nañ ni bi mbir mi jéxé ba légui moom ma ngay wër di def ay tournée jël ay centaine de millions dugal ko ci ay tournée fessal ay car rapide ak jaga jay pour dalal xelam te fumu dem danka fu la fa nekké ak menacer ak tiiñalaate ak wajal bopam ci recruter ay police ak gendarme foog né lolu mën na xokatal nit ñi lolu yépp wax nañ ko Sénégal yépp dégg ko wax nañ ko kilifa yi tamit xalé yoy nekk ci kasso continuer di seetaan